mbokk yi gannaaw bu ñu sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal nañu di ndokkeel jullit yépp ci weer bii nga xam ne moom la ñu tàbbi doon ko séentu doon ko yàkkawleku muy sunu gan gan goo doon séentu di ko yàkkawleku nag ba xam bis ba muy ñëw ba mu agsi ana luñ ko waajalal ci ay bernde muy weeru koor di jamono ju gàtt joo xam ne suñu boroom subhaanahu wa moo wax ne jaam bi lu rek mën naa xam lam say am ndax ne woon man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha waaye nag daf ne koor moom moo ko moom moo koy fayal boppam asiyaamu lii wa ana ajzi bi lu yàlla ne moo ko moom nag tekkiwul ne la ca des daa am ko ko moom waaye la muy tegtale rek mooy fonk gu ko ab jaam war fonk koor moomu nag ñu fàttali ne ci ab jullit farata la farata nag bokk yi mooy loo xam ne ku ko def yàlla tegal ko fa ak payam ëllëg ba mu koy soxlaa waaye ku ko defut it am na lu koy nekk bokkuñu ñu ñëpp gis nañ tey ne mbel ci jamono ju sotti ko tàng jéer moo ne day ñun ci kaw suuf lañ nekk di yëg tàngoor bi waaye fan jëm ëllëg di fa jaara ji yowmal qiyaama door a ñëw muy bàmmeel ci suuf la nekk te biir suuf mooy gën a tàng saa su nekk kaw suuf si kon ndigalul suñu borom du ay caaxaan kenn du ca seet bunt ko jaaral sa bopp doo ca seet bunt buñ lay jaarale bokk yi tàngoor yi muy tàng tàng ñun ñëpp ko bokkandoo di yëg ku génn si bitti yëg nga ko noonu la ñuy yéegee nag kenn ku ci nekk bis buñ la takkee ba dugal la ci biir suuf yow daal yaa fay nekk donte fii ñu nekk ku ne mën naa fexe ba ne fu sedd ba bu génn du yëg tàngoor waaye bokk yi xool leen bàmmeel xas fax si nim dawee ni mu tuutee te waxtu wu nekk denc nañ ko nit dem bàyyi ko fa tàngoor di ko fa fekk sedd di ko fa fekk waaye nag la fay seral ay yax dëgg léeg-léeg nga dégg ku ñaanal yàlla yàlla seral ay yaxam la fay seral ay yax mooy tënku ci ndigalu suñu borom bañ caa wut looy tànn moo ne moo gàllu ci suñ kaw bu weeru koor ñëwee fu nu fekk te amut wér ku ne xam na boppam na ko woo su ko fekk ci tukki na leb ba dikk faj yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra amul fenn fu yàlla di tëj bunt tëj volontaire bokk yi lay dafa war a jeex gis nga ëllëg gi ñuy waxtaane ak nit ñi saa su nekk nit teg ci bëtam saa su ne ñu wan la koo xam ne lii nga wax nga jàkkaarloog moom xam sax mbub mii mu soloon moom doon te fekk faatu na bañ suul ko bu yàgg la ñuy wax nag yàlla doon lu baax léegi-léeg dala wan luy xewee foo xam ne fii boo xëyoon di fa dem mën ngaa dox weer doo fa àgg ak say tànk kon li yàlla digg lépp ma ngi ca kanam dañ cay àgg te bis bu set ñu gën koo jege yonent bi sallallahu alayhi wa ne koor kum fi fekk ba mu war ko te yàlla tax benn bis bu nekk yàlla dana ko soreel diggam ak sawara doxu juróom-ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki at laa yasuumu abdun yawman fi sabilillahi illa baada allahu بذلك اليوم النار عن وجهه عن وجهه سبعين خريفا دل وخ ne aljanna am na buntu bu fa nekk boo xam ne rayyaan la tudd rayyaan ar rayyaan tur bi rek dafa jar jéem caa jaar dugg ca biir ar rayyu mooy ndox mi ñu sotti ci ay garab wala gàncax di ko suuxat suuxat bunt booba képp day suuxat nit sakkantuma boo jàllee ku jàll ba ci biir yàlla nañu ci yàlla boole bunt boobee nee na bu yamal xiyaamee dañ koy tëj fa ay ponkal ci wax ku ñëw bëgg fa dugg ndax nañuy mel ak la ko wër na mel su bëggee dugg mu ne ko ndax daa nga woor mu ne waaw baat tontu la loolu mooy password bi password ku ne xam na ko ci ñi jëfandikoo internet mooy mot de daa nga woor waaw rek bunt bi ne kaj ci mu dugg ci biir tuddutu génn soo gisee ya, jannatun tajri min tahti al anhar jannat kon aljana du jenn dañu rawante ci ay daraja kenn ku nek jëm say nek buntu boobu nag ra yalla tudd yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena pass wor ba wessu wut ana ñu daan war no ngi ni ñu ne katch buntu ba mu dugg ci bëm suñu duggé ba jeex ñu tejj ko kenn du ci dugaat yalla ñu ci yalla boole sëñ bu mag bi amna na gum tënkee aam fi ramadan aama alsasin bi muy soog a dem ولا بوك شا داو شا دوين سا خاصني كو نين كاي وياك وياك مون ياخ لول واي اك ني خول واخ نين لي واخ لول مون كو تامبلي فاز الذين حافظوا على صيام شهر به اغلق باب للايام ني دون وور فاني ويس كوربي با باني ووري فاني ويس بو نوبي ñoom am nañ ak texe ëllëg faaza alladina xafasu faaza texe na ba noppi ñu ne ko ñoom alladina xafasu ala siyaam ñi nga xam ne bu wóoru koor wi ñëwee lu jàpp bàyyi ko waaw nee na chahrin bihi ugliqa baabun lil iyaam mooy weer weer wi ñu tëj bunti sawar ya bokk yi weeru koor su ñëwee suñu borom day yombal dugg aljanna nam ko yombalalee mooy day ubbi bunt yépp fëlëngal yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam bunt buñ ubbi fëlëngal nag ba ñuy ko dugg waaye ku bëgg dugg rek moo ciy dugg lam ne woon ku mu neex mën naa dem aljanna moom sallallahu alayhi wa sallam ba mu des ku bañ ñu ne ko bañ dem aljanna aljanna nañ ko waxee mu ne mooy koo xam ne saa bu ndigal suñu borom jógee mu am lu muy jiit jiital te maa kaana li muminin wala muminatin wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxijratu min bu yàlla xase boo wax amatut ak tànn ak lu sama xel jub jub gis ngeen bokk yi am xel fu yib gi rek lay mujj léeg-léeg nga jaar ci àll bi bàyyi yoon wa nga war na jaar mu neex lool ba yàgg yoon wa jeex fu yi fii ndax ña fa dëkkoon tuxu nañ kenn nekkatu lu fay des wëlbati te bokk yi dundug àllaaxira amut wëlbati ko fay xéewale day gën di xéewale fay metti di gën di metti yàlla ñu jàll mos moo tax weer la woo xam ne bu ñëwee jullit yépp ku ne war naa jox moroomam loxo bale mu xàq ndax ndax balaa mën a def day set ñaareel ba it képp koo xam ne jaamakatu yàlla la woon mën nga ko xamee ci koor gi dana gën a sawar dana gën a farlu dana gën a am yitte waaye ñu xam ne weeru koor it du foog guddi yi nelaw bëccëg yi kese dañoo war a woor bëccëg bi ca nañ ko santaane te tàmbalee ko di ko defee nañ ko mane ba ba ñu àgg fañ ko nañ ko santaane ndax lu nit jàng weer bis bu sëg mu ne ca wax dëgg yàlla bu ko defee ba weer bi sori war naa mën a mokkal dara kon jaamekati yàlla yi jaamukat yàlla yi seen weer ak seeti na da ko xam seen xar kanam yi dañuy bëgg dañuy liggéey waaye dañuy yokk seen ndàng alxuraan dañuy yokk seeni azkar azkar yi nag xasaid yi mën na cee bokk ndax salawaatu ala nabi la ay ñaan la jéggalu la ak ni ko suñu borom santaane ci alxuraan al karim waaye weeru farlu la du weeru yàccaaraan du weeru biiñ biine fu ker sedde nga dàq ko kese ne yàcc ba ku la gis ne xanaa dangaa woor musiba koor ni ku aw yaram di yëge ruux da caa war a jiitu seeral yàlla li muy def yëg ku ci aw yaramam du ko yàqalu liggéey du ko tee di liggéey la mu doon liggéey bu dee liggéey bu dagan la du ko tee doxi ak bokkam du ko tee ba yu baax yépp man kon bu jàmm bi settantalee ci weeru koor yi ko daganoon ci bëccëg bi yépp mu muñ ko ngir yàlla mën a lekk mën a nante kenn du ko gis na xam ne du dul weeru koor it kii mu koy seeral ma nga ne jàkk ak moom dara umb ko ci moom kon kenn ku ne ci war naa xool boppam digganteem ak yàlla xam ne tàngur wi ñu dund tey ci bëccëg bi ñu ngi ci kaw suuf si dama demaguñ fenn bàmmeel mën na ko gën a tàng bàmmeel climatiseur du fa dem ventilateur du fa dem duñ la fa upp lenn lu nekk yaa ko fay defal sa bopp su fekkee ni tey woor nga ko woor yi ko jiitoon woor ay moroomam te yàlla rek tax yow tàmbali ngaa waxaale li ngay jëlee sa climatiseur ci sa bàmmeel tàmbali ngaa waxaale bu sa kattan ak attunu climatiseur sa ventilateur wala bokk sa leefaa waaye tàngoor wi ñuy jàmbat bokk yi nañ xam ne gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ba ca gën a rëy ëpp ca maqaama mooy teg sa tànk fi ko yàlla teg rawatina nag weeru koor seytaane daf cee la daf cee laxas buy jóg dañuy defe ne buñ ca àggee ñëpp dee naan tàmbali nag añ di wàcc tàmbali ndékki di wàcc tàmbali reer di wàcc ndékki añ sax moo ci ëpp solo naan bisu tey de ku ko ndékki du doo ko ndékkiwaat defe ne ku ndékkiwu dee fan yi nga xam ne ndékkiwuñu ko lu mu wàññi defe ne ko añu dee fan yi nga xam ne añuñu ko lu mu wàññi dafa baax ci nit sax day defar jëm ni muy defare ko wax ruu gi ni mu koy defaree mooy mën a lekk mën a mën a naan kenn gisu la nga ne yàlla waaye li may defare aw yaram it mooy saa su saa su nekk yaa ngi coqum coqami ku ne xam na ni mënut ànd ko góor yàlla moo nu gën a xam suñu bopp baatu juum sax di ko jëfandikoo ci moom waaye nu mu def na la te it du sant nit ki lu mënta def nañu gën a góor góorlu te bàyyi ragalante gannaaw nañu gën a góor góorlu kenn ku ci nekk xam ne dañ koy tërale ak wetam daal di tegi bant bu dee kuñ fonk la genn fonkeel teg lañ cay teg ba mu neex a xool waaye ci waj buñ déggoon la muy wax bu leen ci def suuf si bu leen ci teg bant yi bu leen ci teg xob yi waaye kenn du ko dégg ñëpp ay tax ñu doon bu ñu sottee tàmbali suuf si tàmbali ko laal mu gis gan ndax waxaale wutoon ci li ma seet waxaale wutoon la seet saa bu yàlla ma saa santaane mu wut fu jaar génn ca jéem a ànd ak ku koy layle ba mu mën caa génn waaye kenn ku nekk dañ lay ber mbokk yi kenn ku ci nekk bu ñu boole woon téeméer ni ci benn bàmmeel it mi ngi mel ni mbooloo mi ne la woon ci néeg rek kenn ku nekk ak géntam kon par gis yi par kenn la kenn ku ci nekk na jéem a jàkkaarloog moroomam jaamam waxante mun dëgg xam ne caaxaan sakkanut ci àdduna sax tekkiwu fi dara caaxaankatub àdduna du amul muñ te ki dàq caaxaan ci àdduna mooy ki gën a teg gi tànkam ci ndigalu suñu boppam bu ko jig boo ko xoolee defe ne jig na ko it ëllëg lu jege la innahum yarawnahu baidan wa nara wa naraahu qariba yàlla ko wax soo naan yowmal qiyaama dañuy defe ne lu sore sori la yàlla la ak a jege ci moom mu ngi mel ne bi ñuy wax yenti weer ci gannaaw rek koor gi day mel ne du mas a agsi day wàññi yenti weer des mu ne dana añ reer yi dana ndékki añ yenti weer ci kanam defe ne moo ca nekk di ko lim bañ ne suba la ñuy séentu weer yi tey la ñuy séentu weer yi biig lañu um mbokk yi loolu mën naa muñ lekk fukki weer ak benn yoo xam ne la ko dagan lépp waxtu wala ko soobe lekk la dagan lépp waxtu wala soobe jëfandikoo ko ñu ne la wenn weer la yàlla la woo xam ne kenn du ca def yenn yi ci bëccëg bi kenn du ca lekk di su naan di su jëfandikoo lenn loo bëggoon a jëfandikoo te moom ko yomb na muñ am na ci yoo xam nag jom aku fit moo koy lu metti lu metti naa ko léegi dañ mel ni moom moom lañ seytaane gën a laxasu xiif dañ mel ni ku xiif rek ku woor du ko jig te kii laa woor ba dee kenn mësu ko gis fàttali nañ ne am na ay jàmbaar yoo xam ne xames na ci kooku sax du mag lool bi muy faatu ñaar fukki at ak gett la am ci weeru koor wi la faatu daa wéradee wéradi di wacc ba jeex tàkk ñu bëgg ko defal ay biteel ngir mu jotaat ndox ma mu ne docteur maa woon mu ne bu ñu ko defaloon day dee mu ne ko jaral na ko ko ba mu ko dog mukk dem di lay yàlla ay ndànkam ku mu fonk lool ñëw ne ko jox naa la ndigalul nga lekk ba mën a dund mu ne ko lekk mu ko dog ci weeru ko jël dund jëral ko tegaat sa baat baat ba mu ca tegaat mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah na ci yàlla na si gaay yàlla yi jàmbaar jàmbaar du ne ba doon mag doon ko wutali ñaar fukki at ak ñett la am amul soxna amul dara noonu la ci weeru koor koo xam ne comme ne woon lekkal ci weeru koor am na ñu ko doon wax ñu lekk ma nga ne laaj mu ne ko lekkal ma la ko digal mu ne ko ndax lan mu ne ko ngeen ko dog ci weeru koor dund jaral ko ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah nga musal ci seytaane ak i bakkam yàlla bu ñu yàlla xañ ngëneel dina ci koor te yàlla na nu yàlla jéggal lañ defoon te xam ko te jéggal ñu lañ def te xamuñu ko jéggal mboolem jullit yi te yërëm ña faatu ci koor daawam rek rëccu bi ñuy wax dal na leen ñoom ñëpp alquran nee na bu dee ñëwee ba nit ki dakkarloog moom dana ne yàlla may ma tuuti ma def lii ma def laa mu ne ko déedéet ida jaa ahadahum almawtu qaala rabbi irjaun laali amalu saalihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha ku dëgmal barsàq doo wàññeeku tànk kanam rek sëñ bu mag bi bind ci Masaalikul Jinaan ne ñi faatu ñëpp te diggante daa waree dañ ciy bokk wu génnewuma ci kenn nag kii ak kaa koo ci laaj loo bëgg du la wax gis kenn waaye dellu si wat adduna dong moom lay wax lu mu néew néew ba mën fay jaamuwaat yàlla ndax xam na njariñul jaamu yàlla lu mu doon fa mu nekk wa argabu al ashyaa ila al amwati radun ila dunia maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfaahum in xafaru يلا يلا مسلسل تشتاني كيفكم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين